ñu leen waat di leen euh, ndokkeel a di leen waat bu baax ci suivre euh, bi ngeen di suivre ñu topp suba ngoon gën a bëccëg ci euh, les vidéos surtout les grammaires françaises yi nga xamante ne si ñoo ngi koy di ko teewal toujours fii ci suñu canal di comprendre le grammaire français en version wolof hmm. voilà. Euh, ñu ngi defoon leçon bi yaa di comment on distingue le le nom le le féminin de nom ñu digoon leen daje ni dinañ ñëw ci correction d'exercice yi nga xam ne mooy concerné leçon boobu di euh, le féminin de nom léegi ñëw ci euh, ba tey kon ñu ngi ci comment on distingue le féminin de nom léegi exercice bi di seet 3 ci leçon 3 yi maanaam troisième exercice yi ñu defoon yi jot a def nga xam njëkkoon nañoo def ay vidéo yoo xam ni defoon ci exercice kon bi mooy troisième hmm. wax ni ngeen ah, abonné bu fekkee abonné goo eh, te bës ko notification ngir mën lay di la yëgal vidéo yi nga xam ne ñoo ñëwaat toujours dina ñaan itam nga partage ko ngir njariñ li gën a mat dina ñaan fekkee ni vidéo bi am na dara njariñ neex na la nga j'aime Eh, fekkee ni gis nga ci benn eh, ay dérogation nga daan ñu koy eh, juñ ci commentaire bi ki ñu mën a defaraat suñ toogaay voilà ñu ñëw ci exercice bi c'est trop facile mu ne mettez les noms au féminin noms yi nga xamante ni sii nii ay masculin lañ ay muzakkar lañ turu góor lañ danga ko yóbbu ci seen féminin seen turu jigéen mu ànnaf ñu un muet un musicien un espion wala un espion boo ko defee boo defee liaison un épicier un caissier un boucher un fumeur un sportif un jumeau un acteur un parrain un vieux un neveu un serviteur voilà mi ngi noonu comme ni gisee ci euh, table bi euh, aajowul ñu tekki euh, signification deno yi parce que taxuñoo jug waaw li ñu tax a mooy leeral li nga xam ne moom mooy grammaire bi détaillé ko ba mu leer nañ suñu bopp voilà kon liir nañ nooy yëpp euh, comme l'image da ni ñu gisee nii ci euh, tableau bi nii léegi benn bu ci nekk masculin la léegi buñ ko bëggee yóbbu ci féminin naka la def yow la laaj euh, nooy def hmm. mi noonu wala nga xam ni dinañ ñëw ci corriger exercice bi nii a ah, ak di wax ni ngeen ah, abonné su fekkee ne abonné gu mooy tax ngeen mën see jariñu amuñ dugalee video bu aju ci grammaire bi nga mën koo topp suivre ko l'un après l'autre euh, mu gëna a euh, évoluer sa grammaire française nga mën te gis sa bopp bu baax a baax ak it ñi nga xamante ni si jot nañ see jot wala ñëw ci corriger exercice bi indi li nga xam ne moom féminin des noms masculins yi wala exercice exercice bangoog ñu corriger ko clairement ñu waxoon ne un muet masculin la féminin day nekk une muette ñaari tee kon jàngoon nañ ko ca vidéo be ci ca règle générale la bokk amusien masculin la mooy góor la mu zakkar kon bu nga yóbbee ca féminin ba dañ naan une musienne hmm, boo tamit jàngoon nañ ko ca vidéo bi weesu euh, ci ne woon noo bi nga xam ni dafa jeexee benn consonne Euh, benn koson muy euh, kon bu boobaa ci féminin danga fay beneen kosan daal di ajouté e ca mujj ga hmm. un espion une espionne un épicier une épicière un caissier une caissière un boucher une bouchère, un fumeur, une fumeuse, un sportif, une sportive, un jument, une jumelle, un acteur, une actrice, un parrain, une marraine, un vieux, une veille, un nouveau, une nièce un euh, serviteur une sœur fente voilà vente voilà mi noonu j'espère que leer na nañ nii nga xam noonu ñu ko jànge ci règle générale yi ci vidéo yi wees woon nga xam na nga ca jàngoon lépp moom ngay fekkaat fii ñu corriger ko nga xam ni di la euh, tenir loo compte ci ne boo bëggee euh, li ñuy def ci ay grammaire mu doon loo du leer naññi la nga mën koo tenir compte ci sa bopp bàyyi ko xel bu baax jàpp ko da ngay jël sa kaye ak sa bic bind ko bu la ko jaralee nga def si satan boo xam ni maximum na ko ci ci invisé lu xaw a yaatu bu fekkee ni jaral na la ko yow mi nga xam ni yaay siifur suñ chaîne comprendre le grammaire français en wolof voilà kon doon laa lay encourager fekkee ni bëgg nga mu gën laa jariñ gën a sax euh, ci sa bopp ci sa xel euh, defe comme noonu voilà donc leçon bi day yem foofu du jar ñu di ko guddal parce que exercice yi kese lañ leen digoon dajee ci euh, ñëw na liñ koy mottali ci vidéo bi nga xam ne moom moo jiitu woon comme ñeen ko waxee woon kon wala ma salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu